al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam safaan ba du génn waaye mbugal ñaal na koo xam ne yàlla da koo nattoo muy caabi ay di génne aw ay waaye di denc aw yiw kon fexe doon ñoo xam ne aw lu baax rek mooy jóge ci yow doon caabi yiw loolu ci mbaax yi texe lay sabab ci màndarga yi texe jàmbe la bu ëllëgee yonent ay salaam waxit ne yàlla am na ay gaay yoo xam ne moo leen jagleel ay xéewalam ngir bëgg ñu jariñ nit ñi nee na fii ak ñu ngi ci jariñ nit ñi nag xéewal ga des seen loxo waaye saa buñ ci noppee jariñ nit ñi yàlla yàlla nocc ko ci ñoom kon bari na ku yàlla defal xéewal na yéeg nii dalaa jox xéewal ngir bëgg nga jariñ jaam ñi fii ak yaa ngi ciy jariñ jaam ñi xéewal di ci jariñ jaam ñi xéewal ga des sa loxo waaye soo ci noppee jariñ jaam ñi nag seenul ne waxtu ne mën nga koo ñàkk loolu ibnu a moo ko wax dana ko jëlee ci kooku yóbbu ko ci keneen koo ne bu ko joxee moom moo nit ñi yonent bi salaam yi nee na kii yàlla gën a bëgg ci nit ñi mooy ki ci ëppal njariñ nit ñi ki gën a bëgg ci nit ñi mooy ki ci ëppal njariñ nit nee na jëf yi yu baax yi ci yàlla gën a bëgg mooy bégal ab julit tabbal mbégte ci xolub ab julit wala fekk ku ci aw tiis nga fexe ba teggal ko tiis wa wala fekk mu diis ak bor nga teggal ko bor ya wala mu xiif nga fexe ba dindal ko xiif ba yu baax yi bari nañ yàlla bëgg na yépp waaye nee na yooyu la ci gën a bëgg kon taxawu sa mbokkum jullit ci aajo ju ne ci moom nga fexe ba teggi ko mbokk yi bunt yu mag yi ñuy jaamu yàlla la nit du ko ñuy jaamu waaye des na jaamu ci moom yàlla borom bi subhanahu wa la ngay def ci moom ngir yàlla jaamu yàlla la dun goo xam ne yu rëy moo ci nekk yonent nee na ngir firndeel loolu nee na ma dox ànd ak sama mbokk ngir aajo ju am ba aajo yu faju moo ma gënal sama jàkka ji ma toog fi weeru yàlla di te jàkkaam jooju mbokk yi xam nañ ne genn julli goo fa julli wecc na junni julli ci geneen beneen barab mu ne ànd ak mbokk mu am aajo taxawu ko jàppale ko ba aajo ju faju moom ma gënal ma toog ci jàkka yi laxtikaaf weeru yàlla ak li ne ci laxtikaaf ci yiw ci laxtikaaf ak jàkka jooja dafa nekk ci ngëneel mu ne képp koo xam ne téye na meram yàlla dana ko suturaal mere nit yàlla dana sutura awraam fexe ba mer moomu feeñuloo ko waaye ku wan na merit loo xam bu la neexon nga wané ko waaye nga fexé ba neub ko suñu borom dana faysal sa xol del ak yaakar bu yomal xéme waaye néna ku and ak mbokam dox ngir faj aajowam baaji ji soti yalla teyel ko ay tankam yomal xiyam bis ba nga xamé ne tank yu bari danañ tarxiis néna yow sa tànk du ndax ya nga doon dimbali sa mbokki julit waxna fenen feneen ni képp ku nek ci aajooy mbokam yalla nek ci aajowam kon ku bëgg yalla diko dimbulé nay dimbulé jaam yalla yi ku bëgg yalla sutural ko na sutural jaam yalla yi ku bëgg yàlla yërëm ko na yërëm jaam yàlla yi loolu mbokk yi lu mat a bàyyi xel la kon dox ci aajo yi nit ñi mooy sunna gaa ñu baax ñëpp it yonent yi wàllu yi ñoom ñëpp taxawu nit ñi bëgg nit ñi mucc bëgg nit ñi am jàmm moo doon seen yitte gis ngeen yàlla Musaa alayhi salaam yonent bu mag la bokk ci ulul mi ñu gën a xaj ci borom bi subhanahu wa yenn na ci barab fekk ab ab teen buñ saañ mu jël jëfandikoo dooleem dinni xeer wa fekk ñaari gone yu jigéen yu yoroon seenu jur bëgg wëgg mu jàppale leen bañ wëgg ngir rek taxaw nit te yonentu bi yàlla bu mag la kon daj yi dégg ci loolu ne dimbale moom ñëpp la war cër ba mën a am ci yàlla yi day tax sax nag nga war a gën mën a dimbali jàmm yàlla yi koo romb rek bul ko xeeb sa ndimbal aaja woon na ko jox ko ko yonentu yàlla muhammad alayhi salaam soxna xadija nee na ba mu koy melal moom mi ko gën a xam ñëpp radiallahu a ba mu jógee ci xunti ma ñëw jaaxale ab safan na ci mom mu ne ko dedet yow li ngay def ci lu bax di ko def ci nit ñi ab safan mën dal ci yow don ci ne kon kuy def lu bax ci nit ñi rek yalla dañ la musal kep ku yene ñepp jam jam rek ngay am ku fexé ba lo am bokk ak nit ñi yalla dañ la susural faaw ngay am la bokk ak nit ñi lolu bokk yene nga baye xel ci sunu dundu soxna khadija neena dana yonentu yow day da ngay jokk mbokk di yanul nit ñi seeni tartar waye ku ñak ku ne bu dikke ci yow nga dimbulé ko gan gu ñew nga berndé ko bu tar-tar jamono amé nga bokku nit ñi kuy def loolu yalla du def muko safan kuy def loolu yalla duko tek of safan kon loolu yit nañ ci jànge ne bokku na ci buntu yalla di musale jamne, ñi taxawu jam yalla yi motax ba sunu serigne cheikh anhu bokku na ci lim doon denk njaboot gi kenn ku ne ci na japp ne kum dajal ku ne khadimam la ab Ya la yow murit bi na nga liggéeyal nit ko dajal jappal na jamu ko war liggéeyal ndax da ngay jaamu yalla ci mom ñom ñepp na nga leen te liggéey bi ne bu ci boole ñax bu ko bàyyi it nee na ku ñëw ci yow di sàkku ndimbal loo man ci lu baax defal ko ko su fekkee ne am nga ko bul denc alal ngir ëllëg danaa ko soxla boo ko joxee ngir yàlla tey bis bu si soxla ñu ma yàlla fajal la soxla si am na fu wax ne bu la nit ñi indi te newoo ko am radiyallahu anhu bu la nit ñi indi te newoo ko am kon bëgg na jaam yi ñuy dimbalante di jàppalante ndax ci sunu moromi jaam buntu yaatoo nga ci ngir am ngërëmul yàlla waaye mbokk yi jëf ju baax jooju nag bu kenn ci ñun jàpp ne alal rek la ku amul alal mënu ko jàppale sa mbokk du alal rek koy def alal ci la naam waaye nit ki mën naa jàppale mbokkam ci xam-xam bu mu am dimbale ko ca mën na koo jàppale ci xalaat yu rafet yu mu am jàppale ko ca mën na ko jàppale ci bu diisoo moom mu laa biiru ko lam xam ca loola mën na koo jàppale sax ci darajaam dara ji yàlla dénk mu sukkandiku ci daraja jooy ba kooka aajoom fajow loolu lépp ay bunt yiw la yoo xam ne day jural nit ki yiw àdduna ak alaxira nañ ko yittewoo moo xam njariñ li mbooloo mi lay daj wala ñenn ngay jariñ li am solo daal mooy ni ku ne na fexe bu xëyee bis bu set na jariñ na jariñi na njariñ bàyyi ko ci moom bokk na ci li mag ngi doon wax dana bokk ci war a gudd fan ku amal njariñ nit yàlla bàyyi la fi ndax njabootu yàlla te bëgg na ku leen taxaw kon ku am yéene taxaw leen yàlla bàyyi la fi te bàyyi gi fi des desu ko am njariñ la kon bokk na ci yii sabab gudd fan amal njariñ nit ñi ndax doomu aadama yi ku def ci lu baax danañ la ñaanal te seen ñaan yooyu yàlla du gàntu yépp kon loolu it mbokk yi nañ ko bàyyi xel te xër ci te moytu nag luy yàq jëf yu baax yooyu léeg-léeg it nit jëf lu baax looloo yàq ko ci génn di ko nettali wala di di ci ñax kooka wala di ko di ko di ko di ko naw wala di ko réyal ci boppam loolu yëpp nañ bàyyi xel ne dañuy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi boo joxoon nit ki te sëntu la bu mu tee nga jox ko ndax yàlla ngay jox moom moo tàllal rek waaye yàlla ngay jox nañ moytu kon lépp lu koy yàq euh, borom xam-xam dañuy wax ne jëf ju baax balaa mat ñett da ciy daje li ngay def da koy gaawe lu mu rëy rëy nga xeeb ko te it loo mën ci nëbb ko bu keneen yëg nga def ko waaye kenn du seetaan nit ba lor nar koo sonal nga door koo dimbale ndimbal la ci gën mooy la ci gën a gaaw saa bu leen di waxee soxlaam la ca man def ko ci saa sa dimbale ko moo gën di ko digg ak a digg ba mu jaaxle ba sonn nga door di ko jox ak loo ko mën a jox loo ko mën a joxe lu mu bari bari mbokk yi jàppal ne lu xeebu la bu ko naw mukk ndax yàlla la ko xéewale nga jaamu ci yàlla yiw wépp ci yow la dellusiwaat boo mën it bu ko kenn ci saa bu la nit laajee ci mbooloo nga joxe te ku beru laaj la doo joxe loolu du luñ taamu li ñu taamu mooy nit ki joxe ngi yàlla Ibrahima salaam waxoon na ne ñi yàlla di keral bu yemal xiyaamee bokk na ca koo xam ne li muy joxe ci ndeyjooram càmmoñam du ko gis yooyu mbokk yi nañ ko bàyyi xel dimbalante ngir mu am njariñ joxe sa alal ba noppi bàkkaar topp la ci it mën na moytu te léeg-léeg nit di ko defa nag joxe lu bari waaye dafa mel ne yeneen tax muy joxe su dee ci mbooloo mi daal ñu di ko kañ ak dana joxe waaye bu wéetee luñ ko laaj mu gànt loolu amul njariñ yàlla dañuy joxe ngir yàlla kon lu mu gën a suturlu moo ci gën